ubbi tey jàng tey nekkul lu ñu nemmeeku fii ci l'école Ilimane Ndiaye bu Pikine noor ndaxte condition yi président des parent d'élèves di ñaawlu situation bi dama ne fii ñu wax ne ubbi tey jàng tey mënul nekk lu tax mënul nekk parce que gis ngeen situation bi ni mu dundee fii inondation bi dafa luy luy ndox ndox mu salte yëpp ci biir Pikine fii lay taaru taarusee daaw ci heure bii ndox maa ngi dem ci kaw mais tey au moins am nañ situation mais xool ni école bi salté xale yi mun leen dugal ci biir ñuy jàng ba pare di am ay feebar enseignants yi su buñ duggee ci classe dañuy feebar ay yoo fi ñu toog actuellement sax ay yoo rek ñoo fi nekk. waaye ca l'école set fii nag ubbite jàng tey respecté nañ ko. comme que situation bi defa normal amuñu inondation euh, amul benn problème. ñun dañoo ñëw nag tijji rek démarrer parce que xale yi tamit ñëw nañu parents yi mobilisé nañu te ànd nañu xale yi depuis huit heures. ndongo yi ñoom pare nañu ba noppi ngir commencer cours yi. pare naa pour jàng matière suñu maîtresse jox jàng pare naa xar kanam bi nga xamante ne l'école Iliman Ndiaye moom la wone tax na jamono ji ay transfert yu bari. commencé nañ ko nemmeeku ci yeneen établissement